barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di bal wax ñëpp di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun di ñaan yàlla yàl yàlla saxal ko te barkeel ko di ñaan itam lépp lu ñu fi wax yàl na ñi ko bëgg ñu koy déglu yàlla nañu ko dégg te mu jëriñ leen te yàlla def ci barke bu baax a baax a baax tey ñu ñëwaat ak yéen ci seen beneen bunt mu dellu ci firi gént comme niñ ko baaxoo ci chaîne bii tey ñëw ak yéen ci gént yi am solo mooy gént yi nga xam ne toujours dafay ñëw pour nekk xéewal ak di bégal doomu aadama maanaam gént yoo xam ne foo ko géntee rek xéewal lay firi waaye ñëw ci benn boo xam ne moo nekk gént yi nga xam ne dafay tegtale ci tukki maanaam ay rêve la maanaam ay gént yoo xam ne foo ko géntee xamal ne firi bi moo nekk yoonu tukki incha allah tukki bi mën na nekk ci tukki pour wuti pour daani doole maanaam ku nekk di lijjanti kayit pour tukki mën na nekk ci tukki ci ku tukki bëgg a ñibbisi mën na nekk tukki ci ko am soxla léeg-léeg sax dina am tukki yoo xam ne li ngay tax a jóg mooy guerre maanaam xare boog laa bëgg xam maanaam jihaad dañ ko tuddee yooyu yëpp mën na ci ñëw ala xaalin gént yi foo ko génti rek tukki ci lay wax mën ngeen topp yéen ñi nekk ci page YouTube bi mën ngeen ñu topp ci Instagram comme ñu ko niñ koy faral di waxee yéen ñi nekk ci Instagram ñu mën ngeen ñu topp ci page YouTube bi page bi moo nekk Sidy Bouya Top moo nekk ci Instagram bi moo nekk ci YouTube bi bu ngeen fa demee rek incha allah lépp lu ngeen soxla ci gént lu ngeen gént li ci ëpp def nañ ci ay vidéo boo demee rek da ngay recherche ci sa comme ni ngay seetee ci YouTube soo bindee li ëpp danañ la ko jox parce que ñu ngi jege 200 vidéo lu bari wax nañ ci soo ko gisul mën nga ñu envoyé messag vocal WhatsApp nga bañ a woote. message vocal lañ wax WhatsApp en plus boo envoyé vocal ñu wax ne da ngay envoyé 500 francs pour laaj sa gént 500 Wave wala Orange mu nekk ci même numéro numéro bi mooy 77 959 08 97 soo ko envoyé ci Wave wala WhatsApp ci même numéro bi ngay def ca sa vocal capturer message transfert bi ak audio gént bi wàccee ko incha allah da nga jot euh, tontu ni ma koy waxee toujours balaa ngay envoyé di fay 500 mën nga seet li nga soxla ba pare boo ko gisul ko doo ko def lool gént yi mooy gént yi nga xam ne dafay wax ci tukki bi njëkk mooy jigéen boo xam ne dafa nekk ci néegu sëy waxuma célibataire jigéen bu am jëkkër nga gént gis ci sa loxo jëkkër nga gis mu yor caabi caabi dañ ko indil bunt waaye bu ngeen seeloo ci vidéo yi ma ko indi yëpp xéewal lay firi ak bunt yu ubbeeku ak yokkute jigéen bu nekk ci néegu sëy maanaam bu am jëkkër gis sa jëkkër yor caabi moo xam muy tëj moo xam muy tijji foo ko gisee danay firi tukki ci yow wala ci moom sa jëkkër gént gu baax la di firi tukki fii nafsi ruya ci même gént gi lil maratil xaamil su fekkee jigéen boo xam ne dafa nekk jigéen ji ëmb nag gis na jëkkëram yor caabi waaye mu jox ko caabi maanaam mu jël ci jëkkër ci loxo jëkkëram caabi fee damaa waxoon da ngaa gis caabi ji rek bu dee jigéen bu nekk ci néegu euh, ku am ku ëmb moo jël caabi si jëkkëram wala jëkkëram jox ko caabi su boobaa dafay firi tukki kon ñaara ngoog ñetteel bi mooy moto war ci moto defoon naa vidéo ci lu aju ci moto ak velo waaye léeg-léeg dana bokk ci gént yi nga xam danay firi tukki lil kullu maanaam célibataire góor jigéen ñëpp ñoo ko bokk jigéen ñépp jigéen ju am jëkkër maa ngi ci quatrième bi jigéen ju am jëkkër jigéen ju amul jëkkër jigéen ju nekk ci ëmb jigéen ju sëy ba tas maratul al maratul armala maanaam ko sa borom kër génn àdduna nga génti dagg say wee waxuma weeyu loxo weeyu tànk danay firi tukki insha allahu tabaraka wa loolu moo nekk quatrième bi cinquième bi nga gént di fayeku sa salaire salarié bu gént dem banque jëli sa salaire wala nga gént dem bànk jëli xaalis ci ku nekku salarié rawat na mu nekk xaalis bu bari danay firi tukk lil tukki lil kull ñëpp ñoo ko bokk gént di lekkandoo néew ay mayit néew bu mu mën a doon sa rakk la sa mag la sa xarit la sa xarit danaa ci ñëw waaye nga gént di lekk defoon naa vidéo ci gént di lekkandoo ak néew soo demee ci page YouTube bi da gis détail yëpp waaye fii dafa bokk ci gént yi nga xam ne firi tukki incha allah moom itam lil kull ñépp ñoo ko bokk beneen bi boroom kër maanaam jëkkër joo xam da nga gént mooy sa sa jabar maanaam nga gént di siq ak beneen jigéen boo xam ne du sa jabar te jamono bi nga koy def ndaw si xam nga ko waaye amewul melokaan bu bu ñaaw maanaam nga xam ne kii euh, ndeysaar la nga gis mu am melokaan bu bu gën a ñaaw bi nga ko xamee woon bu nekkul loolu danay firi tukki incha allah moom itam gént gu baax la peinture peinture yi ñu def ci kër li chab maanaam ki nag góoru célibataire rek moo ko moom peinture gént gis ko bokk na ci gént yi nga xam ne dafay firi tukki moo xam yaayi peinture moo xam da ngaa gis peinture bi kes moo xam nga gis kuy peinture kon yooyu bokk na ci ma ñëw ci neuvième bi juróom-ñeenteel bi mooy génti dox ak sa xarit boo xam ne kooku génn àdduna nga gént ànd ak moom di dox maanaam xam ne diw faatu na xaqiqatan nga gént muy dund ngeen ànd dox danay firi tukki incha allah balaa ñuy continuer ñu présenté waat leen yii bu njëkk ay bouteilles saafara la noon présenté kii nag beneen mbir la mbir moo xam ne bu am am solo la saaf boo xam ne baax na lool ci wàllu ubbeeku ci wàllu bayre mooy kii fay mbir nii nag dafa xaw a bari mënumaa tàllal lépp ci wàllu bayre ubbeeku wala ngay sàkku liggéey mu të wala borom kër nga bëgg lu mën a doon incha allah en tout cas am ñu ko xam ñoo xam ne mosuñu ko wax ci suuf waaye mos nañ leen ko jox xam nañ njëriñ li ci nekk ku ko soxla mën nga jokkoo ak ñun ci même numéro yi 77 959 08 97 kii tamit ñoom ñaar même la mbind mi dafa bari moom it kii tu bayre maaye kaaraange la kaaraange la ci lépp loo xam ne day lor ci liggéey cat la seytaane la rab la jinne la lu mu mën a doon incha allah boo ko jëfandikoo yàlla mën na la tàqale ak moom ci lu gaaw jigéen joo xam ne rab moo la tee am borom kër wala seytaane wala sax lu mu mën a doon ba sëy nga euh, yéex koo def mën nga jokkoo ak ñun incha allah mën nañ fexe ba nga am kii kee bu dee kuy liggéey commerce la bàyyire la nga bëgg ci sa liggéey sa business lu mën a doon jokkal ak ñun mën nga ko am foo mën nekk nag buñ jokkowee am nañ yoon mën a jaarale ba nga jot ko bu dee yaa ngi mi moom mën nga yegg si ci kër gi. mu ngi continué ci vidéo bi. maa ngi toll woon ci juróom-ñeenteel bi mooy neuvième bi mooy wax naa ne gént ànd ak néew boo xam ne sa xarit la ngeen àndi dox danay fiiru tukki gént di lekk lem lem bi mooy nekk fukkeem bi lem nga tii ko ci ndab di lekk lem waxuma butéey ndab wala nga dem ci këru yamb di fa di fa di fa lekk lem danay firi tukki yamb danaa ci ñëw bunt danaa ci ñëw bunt waaye gént di lekk lem ci kërul yamb yi wala ci ndab danay firi tukki incha allahu tabaraka wa taala al wajhul jamil maanaam nga gis xar kanam gu rafet gis ñëwoon la ci gént nit ku rafet leer bari kawar voilà danay firi danay firi tukki ci góor ak jigéen ñépp gént gu baax la ci la bokk maa ngi ci fukkeel bi point ak ñaar mooy gént gis euh, adawaatu nazaafa xam nan nañ ko mën a tuddee mooy jumtukaay yi ñuy yi ñuy defaree kër yi ñuy bale moo xam bale fowereekaay liy defar kër wala rek waaw li ñuy bale nettoyé nga gént gis ko danay firi tukki incha allah moom itam ci ci la bokk fukkeel bi ak ñett gént gis xar kanamu jigéen bu rafet nga gént gis jigéen bu rafet def naa ci vidéo waaye ci góor moo xam góoru célibataire la moo xam ko am soxna gént gis ko danay firi tukki incha allahu tabaraka wa taala gis nga jigéen bu rafet góor bu rafet rapport sexuel yu mel noonu dafa bokk ci gént yi nga xam ne daanaka li muy ñëw nekk lu bon 98 pour cent baax na danay firi xéewal dana firi wërsëg léeg dana ñëw du baax def naa ci ay vidéo bu ngeen demee ci page youtube bi mën ngeen seetaan détail yépp foofu ruyat al xubaar maanaam poussière poussière bu mu mën a doon moo xam nga fi mu gën a baaxee nag gën a fi tukki mooy nga ànd nag nga gis poussière boo xam ne coggalu giléem la wala ay nag ñi dëkk ci àll bi xam nañ poussière yoon boo xam ne ay nag fay jaar xar poussière boobu di jóg ñaar lu bëri foog gisee danay firi tukki moo ci gën a yaatal waaye beneen poussière boobu mën a doon danay firi danay firi tukki incha allah danañ ñëw nag ci détails yu poussière yi moom it bokk na ci vidéo yu ñuy préparé kii moom dalil waa deex mooy nga gis njeexintalu tukki ci sa yaram maanaam ku sonn ku tukki bay doog ñëw nga wala nga yëg ne yaa ngi tukki jeexitu tukki rek voilà kooku danay firi tukki dalil waa dex la gént di def euh, nu ma ko mën tuddee sax tourisme maanaam ngay wër dem ci ay ay place dem di seeti ay île wala dem ci ay euh, tourisme daal soo ko waxee ñëpp xam nañ ko danay firi tukki incha allah moom itam dalil waa dex ru'yat tayraan na samaa'i wal ard waxoon naa firi woon naa lu aju ci gént di naaw boobu mu nekk fukkeel bi point ak juróom-ñaar gént di naaw def naa ci vidéo détail yëpp waaye fii da gént di naaw àgguloo ci kaw asamaan si waaye jóg nga nekkoo ci suuf waaye yaa ngi naaw ci diggante bi nga gént di fa naaw danay firi tukki gént di naaw ci gént yi gën a am solo def naa ci vidéo bi spécial yéen ñi te yéen ñi nekk Instagram mën ngeen dem YouTube ba ngeen demee soo bindee rek dina la indil lu aju ci naaw gént di naaw détail yëpp mu nga fa waaw yaatam nañ ko bu baax waaye bu dee nga gént di naaw àggaloo ci biir niir yi waaye jóg nga ci suuf si kayoo ba ëpp danay fi tukki moom itam euh, kii dalil waa deex fukkeel bi point ak juróom-ñett mooy gént gis giléem giléem ci tukki ci gént tukki lay firi am na ay détails nag yu yaatoo yaatu nekkul ne foo ko gisee rek am na ay détails dañ koy indi vidéo bi spécial incha allah waaw kay gént di lem ay yére préparé kuy tukki di lem sa yére danay firi tukki comme kuy waaj tukki ni di lem sa yére dugal sa valise nga gént loolu nga sentir ci biir nelaw danay firi tukki moom itam incha allah voilà gént diw diw diw ñoor wala diw tiir mooy dernier point bi di ñaar fukkeel bi point diw ñor wala diwtiir nga di ko def ci ndab di lekk comme voilà loolu dana séeréer yi xam na li ma wax daal dana fa di tukki moom tamit incha allah bu ko defee ala kulli xaal lii mooy premier bunt bi nga xam ne dana ñëw ci gént yi nga xam ne dafay firi tukki dana ñëw ci deuxième bunt bi ñu ñaan leen ngeen abonné partagé comme ni ñu ko waxee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.